mbokk internet yi ñu ngi leen waat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay bu wér di ñaan Sénégal yéen na fi jàmm yàgg di ñaan way dawli yi suñu borom yërëm leen te xaare leen te àjjana firdawsi ñi feebar tëdd si hôpital yi si borom fëgg seen bopp rawatina ñu caabi féetee ginnaaw suñu borom may leen liberté ndax liberté dara dàq ko di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ndax gis nañ li fi am nii coow li bari na trop trop trop sax waaye lépp rek jàmm lay mujje ñëw seet si nag benn booy wala benn champion depuis combat am ak Kalmu Ndour gisuñu ko ba mu bërewaat fi digganteem ak Maam Mor caatoo caat si loone on ci bila bisimilah ina wala jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba ginnaaw ma sant yàlla julli son bi sant sama ñaari waajur nuyu sëñ ma sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq di wax Baye Fall naan waaj màggal daarum gi muxti gi ñëw na le huit ans di ñaanal Sénégal réew mi suñu borom def fi jàmm di nuyu ñëpp di nuyu fan si club Thiat bu waalo bi di nuyu staff bi di nuyu waa syndicat di nuyu staff Thiat bu waalo bépp di nuyu waa ñuy bàyyi xel wasaare làmb bu baax a baax a baax a baax di ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp waa di ziar président Saliou Baba Ndiaye mafia bi yëpp maa ngi ziar ñëpp comme d'habitude rek di màggal ñëpp di baalu àq bu baax a baax lu xew si dëkk bi ñaan suñu borom def fi jàmm. Thiat si làmb Thiat la moo ko dugal si làmb. Allah moom wax dëgg yàlla moo juddoo ba léegi boobu laa ma nattu bëre rek moom def ma leen loolu bëre bëre rek laa am nattu boobu rek. nattu boobu kese nga waaw. caat kër gi dafa amoon mbër wala caat bëre la. ah man doomu mbër laa de tubaab yor sama mag papa la man doomu mbër laa de. Ah, <laughs> waaw mu bëree wàcc naa. si mbapat. caat fan la ëpp jum dem. fu ma tourné bareegul de yaakaar naa bëri naa fépp ah. Joal rek laa bëreegul de Joal kase à part Joal moom bëri naa fépp. 14 régions yi bëree nga laa bëreegul ak Casamance waaye yi des yëpp bëri naa fa. waaw ah. yi ngay gis ñu ngi si liste simple nii ñan nga si ëpp ñu nga laaleel. tonnerre yi su ma juumul laa fi bëreegul ordinateur laa fi bëreegul ak Doudou Sané ah ak Ngañ Seen ñooñu nag laa fi bëreegul waaye ñu des ñëpp bëree naa ak ñoom. ñu des ñëpp bëree naa ak ñoom. ñu xool caatu waalo li mu ëpp li muy dem si li simple côté la. waaw ma nga làmb fii Dakar boo du yàggee di la gis di bu ñu jël la mooy problème bi quoi te làmb ji moom dafa yaatu da dem fenn dem fenn ciblé wu ma Saalum sax waaye boo xoolee Saalum samay nit dañ faa nekk ba pare dañ may gën di soññ pour may mu si mel ne ay Amaja waa Mbaajo Pël ñoo ma gën a dooleel si lig simple moo tax pour ma woowee rek damay mën a ñëw dama leen gànt waaye ñeneen dan may woo rek ñun tax bëree suñu métier. côté boobu ban dëkk nga ëpp li nga dem ko. dëkk yëpp bëri naa fa yooyu Saalum kay zone yooyu yëpp bëri naa fa bu ko dalee Gàmbi ba wàcc ba bëri naa côté yooyu foofu yëpp. mel ni li nga bëree côté mu ëpp de. non Latmingué bëri naa fa nag waaye jëlaguma quoi ay demi final demi final rek laa fa ñàkk. li nekkul suuf si daa bëgg demi final. ah waaye sant yàlla rek loo bokk seen morom kay dem ba demi final moom jàmbaar nga. ma ne. waaw cat du romb demi final. heure bu waaye ñàkk ay suñu borom moo ko namee noonu. xëy na bis dina ñëw mu neex ah. est-ce que nekkul gi nga yóbbu tamit est yàlla yàlla sa wërsëg moom fi mu nekk ala kuli àll da nga koy jëli waaw xëy na sama wërsëg moo jotagul rek bu jotee rek dinaa ko fa am. jaata mos naa final Diofior. waaw man kay final naa kay fu final bariwul waaw. tonnerre yi kan nga si mos a final si àll bi. yi bari ñu si final de. comme naa caaka finaalu naa ay mbëri bari ah aussi finaalul bari na de. bi ñu mujjee gis nga wàcc li simple arène bi nga demee demi finale quart de mu amoon coow yow ak Laga nga dugal recours dem demi finale yow ak Faral. waaw waaw loolu yëpp compétition la rek ah xam nga ñu ñuy compétition ak ñoom ñu compétition ñoo bokk ñu day def mber ngemb quoi. ñu day def mer ngemb ñëw. mais Thiat respecté nit ñi waay. loolu ñu ko gars yi di waajee sama sama cubu gars yi boo dee ko ñun làmb sembul li ñuy def nii risque la ñuy mun a day toog di kii waaye moom. benn jour arène nationale gars seen saako luy sangu weer ñoom la ñuy dugal benn bis si làmb ji. di ko sangoo gars yi lig sembul bi mu toog toog wu yëngal boobu na man wax nga dëgg nekk yow ñun li ñuy sangu weer bu na amee combat bi ñoom la ñuy sangoo si benn bis kon kay ñun dañuy mer ngemb rek. xam ne jumukaay baax na. non du question jumukaay ah compéti compétition la maam même boo indiwul sax suñu borom ne fii da ngay yegg fii l'essentiel compétition moo si am solo jàng bëri beneen xeetu bëri moo si solo ndax booy xool lig simb dafa metti ponkal mu waaf si tànkam boof tànkam la quoi boo xam-xam jàng bëri la université la boo xoolee ñaari mën a mën a mbëri mën a bëri boo leen boolee bëri day feeñ ndax bëri noonu la moo tax la rek suñu borom bu dogalee sa wërsëg nekk si tamit nekk na si man dama doon toog naa mbëru Luxembourg nag dafa yaatu de. waaw benn ngoon jot benn ngoon nga jël benn 600000 wala benn 1 million boo xam ne doo si kii. doo toog regroupement. waaw doo toog regroupement da ngay jël sa saak rek woo ñetti ñeenti juróom ñu jàpp si. Hmm. nga dem ñëw toog ah loolu bokkul ak yeneen ah. Hmm, daa mel ni fay daf dafa baax bu dul da ngay complet quoi complet. ren ren wàcc nga ba ma bëree kam du ñaari yoon laa wàcc te xaw ma. fan fan benn lamb daal laa wàcc te kam laa dajal foofu tëkkuwaat ko génnewaat quart de finale au bële ma génne. loolu ngéej nag yi cinq cinq nag yi laa dem góob laa génn. à part ça boobu nag génn génnaata gu ma nii ah. dañoo ñëw njéejëng poids yëpp ñëw caat dafa dugg si rek teg teg Kalma bët sa Kalma si semaine boobu la ko daan la ma waroon loolu. waaw damaa xam ne ni dinañ koy mu daal la erreur am erreur bi amul su bëre jël du am. Ah. waaw man xamoon naa ne appartement xam ne man champion la dama dama ne a moral yëpp. nekk foofu kalma muy fa Obali oh, Ngagne Sène ñëpp nekk ay licence bu kutaal da nga dugg rek ciblé oh, ciblé grand panier. moo baaxoo ne ku la daan tey da koy bëgg a daan suba ba si ligue simple loolu ah loolu may neexal ligue simple nga ñëw direct fëgg table ñu njug njugaat na ko nañ dem table loolu dañoo faat doon mbër mag ya fa nekk. waaw loolu loolu. booy xool ji dañoo fàttali mbir dañ na ñaar ñii kii barki dem la mbëri arène nationale ñëwaat fii ki booy bi di ko laaj. da leen jaaxal moo semaine bi ngeen bëree. waaw moo tax nag compétition la bu ñu bëree woon noonu bu ñu day woon tirage ma daan ko tamit damay gars yi xam ne heure la amoon rek waaye muy grand champion bu baax Kalma Ndour maa ngi koy jàmm di bu baax bu yaatu ah waaw sportif la waaw sportif quart de finale. moom a génne quart de finale ñaan ñaan lu ñaan lu final nag ñaan lu final moom jot na quart de finale waaye nag sant yàlla rek quart de finale mooy indi demi finale finale noonu la sport demee. coow li ba demi finale nga doon nekk lu léegi nga wàccaat quart de finale léegi ñaanu finale ngay uti ji. waaw non làmb joo dee làmb boo xoolee dafa seetlu de poids lu poids a nga foon. ñëpp mu nga de finale loolu da ngaa war a ñaan waat pour. ah waaw dama paay jàppale bu baax ñaan maa ñaan gi mu gën a saf fu nii dama araam gi am am teraanga fu ne nii. baraag la courant ñëwagul ndox ñëwagul mer daa mën a ba sonn. <laughs> mer daa yëgal mën a billaay wallaay. <laughs> caat ñu ñëw nag ci lutte avec frappe caat nga def ñaata combat lutte avec frappe. Ah, boo xamee wax ma ko de man damay bëre rek laa xam wax yàpp ma ko de. jàppale man sama raq bee toog naa ma bëre ngaa kii kii kii man na ko man ma bëre ba suba laa ko fàtte. la sama kanam laay xool jàpp moo de wallaahi. bi nga dalee la jàpp mu ñaar laa xam wallaahi jàpp mu ñaar combat laa am nii. Ah. jàpp ma ko nii de. man eh, trois defet laa am ah. yaakaar naa booy Dakar. Mhm. booy Dakar moom a daan. des naa kan anti. ak kii. Kalmundur Kalmundur waaw. sa diggante Kalmundur caatu wax la dëgër bopp ak dëgër fit. ndax amul tol ni yow nga bëgg a xeex njool. non boo xoolee Makal Madud boo xoolee maanaam attaquant kenn du ko ratara attaquant kenn du ko teg ay défensif la attaquant man attaquant la. man dañ maa ailier loo gauche ailier droite loo ba looloo ba sonal quoi. waaw loolu la rek waaye du question dara waaye man ko xam jaat bu wàll xam kalm lu man suma arbitre pir suñu ma baa woon sama sago su ma bëree moom maa dama koy daan ndax bu lool bokk na ay géew may bëree Saalum luur muy bëri lese waaw xam naa ko bu baax maam ay caaxaan dugalu mo si man dama xam. da xam sa xamu la. dama xam bu baax ñi daje si àll bi ma xam ko bu baax xam ay qualité nga koo jël. voilà moo tax ñeme koo jël du kee soo daan dama bu baax waaw bu baax loolu la rek. abi nga bëgg a taxaw samp jaaga. non samp jaaga bi sax moo ne woon yoon ah rataraale yee ma sonal ak yooyu noonu waaye ma tax woon képp sa jëflante moom jàppante moom bërëb day ubbeeku ñaari mbër ñaari mbër lig simple bu ñu jàppante bërëb day am waaye bërëb bi noonu la war a mën a demee ah boo amee nekk ndaw dafa nga déglu ay conseil bëri normal waaye nag suñu borom moom lu mu namm noonu la ah. nga ñàkk wàññeeku waat gisaatuñ la gisaatuñ la ba bi nga jëlee Mamor ñëpp ne caatu waalo moom fu métti lay dugg na si Kalmandour wàññeeku jëli Mamor waaw normal làmb la làmb ku bëre Calme Ndour moom mën nga mën ngaa bëre ku ne si àdduna bi boo xoolee Calme Ndour lu mu bëre man si minute bëri ko fekk ñu ma ëpp sut ma bëriwul bëriwul ak ñoom temps boobu lu mu xeex man dem àdduna def ko fek moroomam kon kay làmb rek suñu borom moo nekk dernier si dernier kàddu gi ah, mooy xool ku ko neex mu may ko boo ñaan loolu milage borom moo nekk dernier chose waaw loolu la rek damaa utu ji mu utu suñu borom xañ ma may ko ma sand suñu borom. nga jël nga mujj nga jël nga jël nag Mamour. waa noonu la Maam Mor li ma li ma Kalma Ndour waxoon laa defet eh? ma boole ak moom rek. defet ma boole ma boole yow man ma boole woon ak moom qualité yi bokkul quoi champion la nag waaye yi ñoo bokkul quoi. dafa mel ni bi bi nga jëlee Maam Mor beneen caat lañ gisaat. waaw noonu la man bu maam lamb heure boo jugee rek na na sportif nga heure boo ñëwee gars yi dañ na war a wax ne gongo lamb moo baaxoo noonu waroo jël ñii ñëw ñaan. non état de forme bi nii état de forme bi ne déedéet chaque jour boo ñëwee da nga war nekkaat beneen référence bu bees di indi wàllu bees yi bët nit ñi moom la ñu ndam suñu borom rek moo ko yor waaye entraînement moom yaa ameel supporter yi moom suñu borom rek moo ko yor dañ ñëw dañ ñëw question waaye entraînement moom yaa ko yoreel supporter yi moom wax dëgg fa yàlla moom. bi nga ñëw samp jaaga xeex li kenn xamewul caat moom la caat def. non man ikiri waaw laa baaba ni ma da même septembre li maa ngi giri waalo dafa xeer ngeen def waaw maa ba may dem septembre fekk naa jamonoy mamm dóorante naan loxo xorom xam naa li fa nekk xëy na dañoo favoriser bëre rek ku taxaw di xeex ak kalmandur ponkom doon tam ngeen demandoo ardu kon am na am na loolu si yàlla may waaye sant nag sama course yi mel ni Souleymane Ba Amady ñoxor ñoxor maa ngi koy sant bu baax a baax jàpp na si combat bi wax dëgg fa yàlla moom ñoo xor dama daa boole ay champion ay boxeur yi war dem championnat boxe ji ay joyaay toll ni kalamandu dañ may dóor ba ginnaaw dëgg fa yàlla. combat si dëgg. dañ naas ay coono damay jugee contact ba su ma ñëwee du ma lekk du ma naan dañ may dóor ba ma ma ne waalee waaye nag ndam la bëggoon rek moo tax suñu borom may nañu ko. lu ngi arbitre sifflé rek nga dox utali ma ah, bii kenn du la conseillé fu mu sekk tànk teg fa tànk kenn du la wax looy def bii baax. déchargé nan la tey soo moom solo wax loolu waaw na ma déchargé nan la tey bee paas ñu lutte woon tey nag déchargé na la defal loo xam mu ne ko ah, alhamdulilah. man li nga ñëwee ah, waaw ba ma déchargé gis nga damaa ñëw rek ak acca moo yàggal làmb ji sax waaw. Hmm. Ah, moo ko yàggal bu mu dee woon bëri man sax làmb ji pour man dañuy bëri ah pour man day cuq si kaw bukki tamit ñëw suuf waaye nag. suñu borom mooy xool nu ko neexee jaam mu maye mu maye ko ndam xëy na suñu borom noonu la ko nam moon ñoo ko ci sant bu baax di ko ñaan mu dolli ñu waaw. fi mu toll nga jóge si Mamour Thiat la jëm. ah man man kay fi ma jëm xam ngeen ko. comme ñan man kay fi ma jëm xam ngeen ko. man ci kaw laa war a bëre. comme ñan fii may ñaan saas Tidiane Faye rek laay ñaan saas waaye à part Tidiane Faye kenn ku ma fiy ñaan saas. professeur ñëpp samay morom lan Tidiane Faye rek laay ñaan saas bu bu jaalee Tidiane Faye ñaatuma keneen saas kenn rawuma si Kalbu Ndour laa mujjee bëreel Eumeu Sène mu Eumeu Sène junior la mujjee bëreel kon maa ngi ci catégorie buntu buntu ñoom franc bi kon ñuy suuf di ma si ñaan kenn sens. dafa ni franc jël bi mu la daanoon dana la. ma la la. sa xel li tax nga ne ko yaa bi maa ngi foofu ba léegi fa laa bokk. suuf yéeg dem sama ah man ñuy sonn si man daa bare. bu dul Tidiane Faye ñaanoo kenn sens. kan ñaan sens sama ban morom. lamb bi ñuy dégg ñu ko rumbandaat. mooy kan sa digganteeg. ndobin bu ñuul bi. pokola bu wàll. non loolu du làmboo bu wàllu pokola loolu du làmboo. dootul li ma la wax fi jaar jaar ak ma bëre. làmb ak maas dabante la. boo xoolee du làmb ah qualité yi bokkul. non làmb caat dabante la. bokkul sax liggéey la li tax mu leen a dab si. non ka ka la ah, laa ñant yaan fay damaa liggéey doom man. dafa nekk si yow pour mën a sens. non man te war a sangu si sens. waaw man na laay maye sens man mënu maa maye sens damaa war a sangu si sens kon na laay maye sens. da ngay man damaa nekkal si yooyu. waa bañ de. yaa bañ. waaye xaalis a génn. lamb jànk laay bëree man. combat lamb jànk la déedéet boo sa kaw. ci sa kaw xam nga samay adversaire baax ñi ma war a bëreel. waaw ah boo xamul kay mën ngaa tëj ci émission. <laughs> ah lamb ni nga def ni nga def ba Cité Tidiane Faye. nangu ne Tidiane Faye yaa moom. dalay may sens. waaw moom moo ji si làmb bëree fekk suñuy grand daan suñu yenn grand yenn grand yi daan ko. waaw c'est normal nag moom ma ñaan ko sens. moom ma njëkk si néeg bu lëndëm bi. bu du ma tuddaal keneen de ñeneen ñëpp ku ma làmb boole ba bëri yow waaye moom Tidiane Faye rek laa am droit ñaan ko. ñenn rawuñu moom ma leen di ñaan. waaw rawoo leen waaye làmb boole na leen. waaw làmb ñu boole na leen di tuddee fii yaakaar na ma leen di séddate fuleur dama koy defal kenn xalaatuma ko. xanaa nga tudd leen fi Tidiane Faye daal laay sarax di ko ñaan na ma may chance waaw professeur ak iniversité la moom doy mën a neex rek. professeur ak université. professeur moom lu ma xam si université bi ko jëlee dama dimbale rek ma ñëw man tari tari la ma foofu rek. Tidiane du ñeexu ñebe benn booy. moo tax nag man su ma bëree Tidiane Faye xam maa dinaa gis bëri bu rëy bu neex. ci ren Tidiane Faye sax war. waaw moo tax man su ma gisee su ma bëree Tidiane Faye maam loolu bëri bu rëy ngay gis caat bu wàllu arène nationale Tidiane Faye ñu daar rek dañuy jaxasoo. jël bi da xaw ma kuy daan moom waaye top 5 moom jour boobu dina am gan moom. ah xaw ma kuy daan da waaye dina am gan ah. Tijaan la mën si bëre xeex. waaw loolu de man maa ngi pare pour lépp. yow gis du ma gis. man ma dem ardo demati ardo teppeeku ñëw demaat teppeeku xam naa. xam naa man ardo loolu nga ñi ñi demul ardo man dem naa. man dem naa ardo jël naa ko kaaw dëbbu naa taxaw bëre man kay yooyu yëpp naa ko. yëpp ñam nga ko. ñam naa yooyu yëpp. kon daal sa xel fi doon Tidiane ah Tidiane ñi si des moom yaa ne war a ma xam ne ñii waaw yaa waaye ñi des moom. man daal bëgg naa si diggante ak Pokola. ba léegi làmb la ku ci wax samay course ak samay entraîneur. Hmm. bu ñu lu des garaawut. mun a am problème boobu. Ah, làmb bu ñëwee laa fi nekkal làmb. Ah, damay dégg gi baraak la kat. moo tax man la laa fi nekkal. waaye am na bu suñ course nangoo rek man lu des amul garaaw man entraînement léegi tëdd nelaw la ma ginnaaw bu ñu jugee si làmb tuuti ñu gis dëkk bi fi ñu toll nii li fi nekk ci jafe-jafe dëkk bi li fi nekk ci ñenn ñi lañ ko mën a wax ñu ne yenn yi mbër yi la comme ni ñuy wax nervi ñu ne mbër yi la te jii yow noo ko jàngatee. Ah, lu ma ko jàngatee mooy lu du ko du ko mettre loi ah, di xam ne bu dee ñun mbëri la ak bu dul ñun mbëri yëpp maanaam sportif yi nii jël di leen fay ñuy wëlbati du dóor askan wi seen askan moo leen def lu lu mel ba mën leen gis di leen fay dañ see war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax bu dul dara sax ñun bu dara sax ñun tuumalaate beeg yooyu noonu ñuy teg de yii bu dul mbër nii man su ma la waxee man ba ma mun maa dugg suñ koñ baalu àq la boo génnee ñu ne mbëri nervi ga da ngaa mën a day laa ay nit naan da ngay dugg si koñ baalu àq ñu naan affaire nervi mënoo ko da ngay obligé toog si benn kon ko sama koñ a ngi fii am na dese ñuy tudd booy mbër xaw ma moo rey nàngam dëj bi ba léegi teel a cinq jours xaw six jours mënu ko ma faa dem boo demee mbëri la mbër boo boo nee mbër rek boor ku nekk mbër moo tax gars yi nañ bàyyi xel xam ne ñun ñii suñu njaboot lañ nekkal suñuy raq lañuy ñuy dóor suñuy mag la ñuy dóor suñuy pap la ñuy dóor suñuy doom la ñuy dóor te xam ne ñun mel ñoom la waaw ndax diwoo yokk diw ba diw yokk diw ba diw jotawaat si diw moomu kon ñun nañ bàyyi xel na ñun ñii ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp lépp lépp lépp lépp lu ñuy def rek su kaw la suñ kaw lay këpp waat ah suñ kaw lay këpp waat koo dóor gaañ ko sa mbokk nga gaañ sa deret nga daañ boo gisul ku ko jege di nga gis ku ko xam wala moom xam ko am dañoo war a xalaat avant ñuy rëccu xalaat avant xalaat xam ne man mii kat mérite ma ñu fay ma 15000 wala 20000 may dem di dóore ah mérite waaw lu ñuy fay lu lool ay 15000 ak la leen di fayaat lu lool daa jar ngay jaay sa ngor. loolu dem ma soo gën a li ma la am na xam ne ji jaay sa ngor jaru ko fi gars yi nañ delloo seen xel xam ne li yëngu bu ne am na fi ci tekk rek lay mujjee ak si dal gars yi war daa di seen xel njëlub jàmbur na ku ko borom lu mu yàgg-yàgg borom bu ñëwee ngi del da jilaat jëlaat sam njël rek kon nan bàyyi borom njëli jeere seeni i njël moo gën ñu nekk fii di dang-dang di teg nit ñi finna ñuy topp nervi nangam mbër nangam te booy defuñu kun gis boo doxee saa nga masque kagalu nit nit bu doxee nga xam ne diw la. Eh, booy da nga fii ku mën a liir man sama doxin doxin spécial la keneen doxam doxam spécial la keneen doxam spécial ci dox maa nga wane ginnaaw dañuy xam ne kii diw la. booy dofuñu de man bu ma bëree ba léegi maa ngi bëgg ñuulal waaye ñëwumaa ñuulal du tax ñëwumaa ñuulal mooy damay bañ ñu ne moo nga mars nangam moo sol nangam. tent moo la ma baf sama tent bi ba léegi ku ñëw gisoo tent nag gis ab tent di nga xam ne kii fi mu toog moom fa toog lu gën a met loolu bëri war a ñuulal bu yàgg mënoo ñuulal war a dox baalu àq si koñ mënoo baalu àq ndax ay lan coono nervi nervi nervi mbër ñetti fan a ngi nii ba xeex ba amee ba léegi ab bolok laay laay laay doxee. bolok laay doxee bolok mënumaa sol mënoo sol jiin mënoo sol plastique mënoo sol kaki ay cerex laa sol yoo xam ne jotuma ku ma gis xam ne man mii programme xeexe ah nanguwu maa sol plastique nanguwu maa sol daa clinique daal di jot nanguwu ma sol ay cere xam ne jotuma laay sëkkal ngir ku ma xam ne man sama yoon nekku si ay isuwaar ak ay xeer. man nee naa la man noonu laa amee combat dem pale sama combat pale nekk jé combat ay 10 jours xam 11 jours nan nan laay amee combat dem amoon defet yore koñ bépp defet pale di heure entraînement tombeeg jour entraînement ma war a mat naa lu suwaaru ne ah. man damaa tal loolu aw ma jot boobu sax. Ah, kon jombal ku dem la ñuy jombal. Ah, kan lañuy jox mu ñëw joxe. kan wax dëgg fa yàlla association boobu bu nañ leen compalee tamit man jotuma ma si. na ma dëgg rek jotu si de kun compal man mu jotu si wax dëgg fa yàlla. waaw ñu dem pale nag ñoom la concerné na ñoom la concerné de. yow bu ñu ma. bàyyi ma liggéey ba ba amee ni ma woowee man woowuñu ma man yooyu ñoom la concerné. ku nekk li la ñor man damaa bëgg a yegg ni yegg ni ñoom ah. bët foofu laa ko teg ku yegg la ñu wooru ñun yeggagul kon dañoo warante yegg ba pare waaw ñun yeggagul ku yegg la ñuy woore man bu ma xal woon pale naan ay puusal fii ful kaa jugal fi waay si biir mbër yi am na si mbër moo xam ne booy dañ ko jotoo dóor ba mu ñàkk ci bakkan ah man day déggoo li ma si man caat bu waal demaam part maay wax sama kàddu direct kun ci gis amul man mi sax bu ma gisee ne ma dóoruma sedd guy xanaa leer na yow kun ci gis mënoo booy boo amee boo xew xewle ñu jël seen xaalis fayal la set dafa la set treize mille ketal la regroupement français buntu kër nga wul ku naan da nga leen di dóor tegul fenn kun ci gis bu dee man mii sax ku ma si gis bu ma xàmmee dóor ma ba ma ba indi indi suñu kër néew dóor ma sedd guy ah leer na sama bopp laa jëlee misaal kun ci gis amul gen amul pour dóoral ba mu sedd leer na. kon daal su ma déggee sa wax yow li gars def nii yow rafetlu woo ko nangu ko. lan siy rafetlu ñun ñu war a dalal booy yi indi booy comme bu ñu amee làmb nu ñuy duggee di ñaan di leen pour ñu ñëw dajale mbooloo mi pour ñu dem si jàmm ak ñun ñu war a woo booy yi dajale leen xaw ma nu ko tubaab di waxee xaw ma si Sylvie kii nii xaw ma nuñ ko tubaab di waxatee ah? sensibiliser leen ah, ah. wala woo booy sensibiliser sensibiliser naan da leen di dóor di leen rey léegi yow loo bëgg te ñun bu ñu amee combat fu ñu dugg ngir bëgg booy teewal ñu ah wala nekk ay homme porte voix di wax ah bu waree mars sax waroon dem waaye mars avec manière cinq mbër yi am grandeur am seen fula mën nañoo day la ay booy ñu mars magnifiquement duñ taal pono dox ba seen xool sedd mu jëm mu jëlaat départ booy waaye boo gàddoo di dóor ñu fayu rek. Ah. waa léegi man ku man mii bu ma gisee man man Thiat Boy personnel boo leen ma gisee dóor leen ba ma dee eh. ah damay wax dëgg de. xarit dëgg loolu Thiat Boy maanaam message la boo xam da koy lancer en tant que lutteur message la boo xam da koy pour en tant que ay supporteurs am que lépp si làmb ndax moom mbër la comme ñëpp mais Thiat fi ñu comme li ñu cër la woon soxla ñu càppandoo ngay tàggatoo. waaw maa sama dëkkandoo yi di sant mais waa Ndiobène bu baax a baax. di sant Fatou Ndiaye Seydou Mor seen borom Diourbel xale fa jaay kullu yére maa ngi koy sant di sant baabu boroom borom Touba Petersen da siy jàpp bu baax a baax lépp luñ sol si yére moom la di sant bii Diallo dugal na si loxoom bu baax a baax xaalisam alalam dooleem ñaqam topara teewal ñu estat grand àndaw Ndiaye amuñu fayam ba ñuy bëre ba léegi lii génnal ma ko nag bul ko dagg ba ñuy bëre ba léegi mosuñoo neenal àndaw Ndiaye ba ñuy bëri ba léegi suñu premier combat ba léegi nii yaayam génn na fa àdduna teewul woon nañ jox ñu xaas bari xaa Andaw kon grand Andaw ñoo ngi lay ñaanal li nga bëgg yàlla na la ko suñu borom defal di sant maître Dan bu Abdou jalikan Kan Dan ba Abdou maître Jali lu nekk moo ñoo xewle mu ne nañu maître Dan ba Abdou maître Jali Kan lu moom day teew maanaam bu ñu defoon ay làng teg siis sax day ñëwal boppam ñëw maître Dan. di kilifa gu mag di suñu kilifa wàcce boppam yaa may dégg di sant xaalim mbay jiraaf sama doomu yaay nan ko mag bu nu xewlee bul xaar ñu yëgal la bul xaar ñuy yónnee ndax sama yaay dalaa jël safoo la tiitaroo la li la war su ñun dee ko def ay mag ak raq lan yaay mag ñun ñooy raq kon bu nu xewlee bul xaar ñuy ñëw del ñëw di si jàpp bu baax a baax a baax di sant nag ndaayaan awa balla père Moodu maa koy sant bu baax suñu lépp la Père Mour mention spéciale Ndayane Awa Balla da ciy jàpp wa saayiran wa baatinan di sant ku si mel ni Serigne Gueye Mouride Sadikh mention spéciale Ibou Dias sama xarit Ibou Dias moo nga ba Dias da ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax Bamba Baabu borom Pout ñoo ngi koy sant Bamba Baabu da ciy jàpp bu baax a baax a baax Bamba Baabu borom Pout da ciy sant bu baax da ciy jàpp maa da ciy sant da ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax Bamba Baabu di sant nag. ku si mel ni Omar Sané directeur maa ngi koy sant bu baax donte combat bi gisuñu ko waaye mu ngi ci doon dugal loxoom wax dëgg fa yàlla donte gisuñu ko tamit ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax mu ngi ciy jàpp suñ ko gisoon mu jàpp si wax day leer. daan waaw da siy jàpp waaye bii gisuñu ko waaye du tee dañ koy sant bu baax a baax Omar Sané ndax xaaru lool maa ngi sant Papa bu baax borom France di sant la grand joole bi international Mass Petit maa ngi leen di sant bu baax a baax ku si mel ni des na de euh, Mbaye Gaye moom tamit des doon jàpp Mbaye Gaye lépp lu ñu doon tiset Mbaye Gaye bu Déthié Fall lépp lu doon tiset moo ñu koy may waaye bii dafa nekkoon si ay xat-xat wax dëgg fa yàlla ay raxam gaañ nañ fi ak yooyu moo tax dugalu si dugalu si loxoom waaye ñoo ngi koy sant bu baax xat-xat moo ko tënk ñoo ñëpp dañ siy jàpp di sant laay syndicat bu baax. Cheikh nday Sarr maa ngi sant bu baax a baax a baax da ciy jàpp Ibou Niang maa sant bu baax a baax a baax a baax da ciy jàpp di sant nag Sam Ginda Jo Mamor Babu grand Yoro sa France grand Pablo Sëñ Saliou café mi jaay café gi doomu nday saa kees ak caat bu waalu nangu naa ko saa kees léegi maa ngi sant bu baax a baax a baax di sant nag lii damaa bëgg a génne ma ko Pape Mama Fall Pape Mama Pape Mamou maa ngi koy sant bu baax a baax maanaam combat bi daa def lu ma marqué bés bu école Balla Gaye laa woon ko dara nekk fi dimbali ñu ngir yàlla jot ci pam Pape Mamou minuit laa dem këram ba trois heures du matin mu recevoir ma te loolu jafe na yëkkati alalam yëkkati la may sangoo jox ma compal ma te sonn naa lool mbër mu war a suba di wër kër mbër kër nit ba une heure du xaw ma quatre heures du matin laa fa génn te war a suba mënoon na ko see bañ a fekk jëndal ma reer na ma reeral pap maam ma yëkkati alalam na ma pap jàpp si kon kooku na ma reer du ma ko bokk kon comme pap ma maa ngi sant maam du xaalis bi acte bi mu def ñëw jàpp ma bëreeg man ba ñakk tooy xepp naan ma bu la mbër mi nii noo koy def gis na bi moomu maam loolu daa yaatu si man di sant nag xaadim xaadim la grand marabout moo ngi nekk syndicat maa ngi koy sant da ciy jàpp Ablaye Saw jàpp na si bu baax baax di sant ngañ bey la la seen vie marabu marabu borom borom neex bi de laa ko tuddee léegi sëñ Mor Fall indi sëñ Moulay Fall borom kul borom ngaay meex da lay ñaanal di la bokkal Thierno Mamadou na Mamadou da ciy jàpp bu baax a baax Ibu maa ngi sant Ibu bu baax a baax taalibe Cheikh Aziz Ibu maa ngi koy sant bu baax a baax da ciy jàpp ku si mel ni tamit ku si mel ni maa ngi sant Alaaji borom bassin bi Alaaji sama premier combat ba léegi mu ngi ci dugal loxoom alaaji maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di sant ku si mel ni laay laay jóob maa ngi sant lépp luy fur yi moo ko indi si combat bi waa syndicat sama grand ku si mel ni laay Papa Ndiaye aw ma fayam ñooñu dañ ciy jàpp di ma doole ndax man sama loxo jotul sama ginnaaw sama wokkatoo sax du ma yëg métti wokkut ndax sonn yaa may dégg di sant sañ As borom Daaru Salaam maa ngi sant bu baax a baax a baax sa dexu naa mu kaburoo bàyyi amidoo maa ngi koy sant bu baax da ciy jàpp. di sant nag ñu ñu taalibe Cheikh Maane Cissé yi abu mu Cheikh Maane Cissé da jàpp bu baax a baax a baax Cheikh Maane da siy jàpp Cissé bu baax ñu ngi koy ñaanal di sant nag ñii nga xam ne mënuñoo ñàkk staff bi jigéen ñi ma mention spéciale aw ma fay di sant président fan si club bi di sant ex président fan si club bi góor ak jigéen di sant président staff bi du ma leen lim ndax mu ne staff tënk naa lépp ñooy ñoom man maay man kon maa ngi sant ñooñu bu baax a baax di sant nag sama waa koñ bu baax góor jigéen mag ak ndaw di leen baalu àq bu baax di sant sama dëkkandoo yi waa ñetti mbaar fii nii ma def émission bi maa ngi leen di sant bu baax di sant sama goro bi di sanc fii di ñaan sanc bi jikko muy bàyyi jéy ba muy metti la ma jël na ma kaay fii jox ma dugal ma si këram jox ma néeg jox ma lekk jox ma naan res ma lépp te def ay at ku ko defal kon ak kooku amoo fayam te yor na ñum jege ñu ko mënoon def di wax ju ne da koy dégg teewal mu gumba toxlu kon maa ngi sant Baye Dieye bu baax a baax a baax a baax a baax di sant Ibrahima borom matt yi sama goro Ibrahima maa ngi koy ñaanal suñu borom indi xéwali ndax xam naa ne bu indee xéwali ay gaz lay mujjee jël kon maa ngi koy ñaanal suñu indi xéwali di sant la fils de Koriana borom Mbour Cheikh Manabu la fils de Koriana sama nijaay maa ngi koy sant ndax làmb ji damaa diggoon ñëw ñëwul Ablaye Sow nag maa ngi sant papa États-Unis di damaa bëgg a génn ma ko ngir yàlla papa États-Unis xaalis bu bari la jël jox ay sëriñ ñu ñaanal ma déplacé leen ñu ñëw maa koy sant bu baax papa borom États-Unis doomu Marème Fall maa ngi koy sant bu baax loolu dafa jafe yëkkati sa xaalis jox nit na ñaanal diw yëkkati xaalis bari jox ma na ma préparé say lekk ak say naan kon maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax papa borom États-Unis di sant yéeri maayo suma xarit suma nit ñëwul waaye maa ngi koy sant ñu doon ñëw maam bu leen téye bu bu ñëwul rek danaa tax dañoo kiiwul kon maa leen di sant bu baax di leen gërëm di sant nag ñu mënta ñàkk ñi dee na dimbali rek ñu ñëw may jàppal damaa jógee si làmb dafa metti fu mu ne nii damaa amee bor. weccet ba ma yoroon jeex na. liiru liiru am na lu ma dikk maa ngi koy xaar sama grand liiru. liiru téléphone ba maa ngi koy xaar iPhone ñetti bët yi maa ngi koy xaar moom laa bëgg. waaw di sant nag daam Diop. Dame Diop maa ngi koy sant sama grand sama sama xarit la ñoo defandoo lépp waaye moom tamit dikkul waaye situation moo da leen di comprendre rek ñu doon ñëw bu ñëwul rek xamal ne situation la quoi duñ xaar ngay ñëw am na xam ne duñ xaar biram biram heure ma ko woowee ne ko ndékk du xaar borom borom nangal ma day ñëw dama koy woon maa ngi nii yor ma fay saal musculation mu dagg xaw fekk yor na ko yor ko mu lijjanti ko dugalal ma fay sama grand papa fay sa état yi lépp luy vitamine ci combat moom ma ko jëndal gaa yemee boog soog fere yi lépp sama grand pafay borom état sama grand seetaanoo ma benn yoon yaa ngi may dooleel di ma jàppale seetaanu ma benn yoon sama grand pafay sa état yi seetaanu ma benn yoon lépp lu war si man mu ngi koy def matériel entrement yi man rafetlu woon yu bari moom ma ko yónnee ay bawuma daal nee na lu ma benn yoon entraîneel lekk ba suur xam ne da war a nekk champion loolu la gëm gëmloo chaque jour kon kooku maa ngi koy sant bu baax di sant bu aada aada borom kolobaan maa ngi koy sant di ko wax mu ñëw aada ensemble yi ñëwagul si ñëw jàpp aada sama xarit ñooñu ñëpp dama leen sonal du xaar tafaa tóoni tóoni maa ngi koy sant bu baax sama benn grand la maanaam lu gën a dee damay jóge entraînement du ma yor lu ma reere dem ci tafaa tóoni na ko jox ma te jar na jabar ak doom bu bee passet bi damay wóor a kii dépasse suba moo fa nekk wallaahi azim mu ubbi jox ma te du xam situation nu mu toogee tafaa tóoni kon maa ngi lay ñaan li ngay yëngu suñu borom yokku say xéwal yokku say teraanga lépp barkel ndax bu mu mënoon nga maa neenal waaye defoo ko di sant Cheikh Angers mu defar tiset yi lokos yi yëpp njool baay Fall de seen création li mu sol lépp mention spéciale maa ngi koy sant di ko gërëm di sant waa ñett mbaar bu baax a baax a baax a baax a baax di sant sunu Ibra Fall ma doon àndal di mat maa ngi koy sant bu baax Ibra Fall ndax jabaram la bàyyi chaque jour ñooy ànd si moto bi di sant waa écurie Mor Fadam ndax combat booy xool xaaj yëpp fa laa ko préparé. écurie Mor Fadam. ñun écurie amuñu chance intérêt Guédiawaye Eumeu Sène junior maa ngi koy sant bu baax maa ngi moo doon préparé ndoo combat suñu borom xañ ko maa ngi koy ñaanal ba amee combat ma ndam muy jantal grand na ko waa gars yi di ñëw di jàppale ponkalu Guédiawaye message am solo laa jox si ponkal di bëre seen biir dimbalante ndax lu tax ñu war a ñëw jàppalante Eumeu Sène waru waru bëre kii mel ni ku toll ni Serigne Ndiaye numéro 2 di gis ay benn lu ay benn caat bu waalo man toll ni mën ne Serigne Ndiaye numéro 2 mën naa koo yokk vivacité mën naa koo yokk souplesse waaye cadre carcasse ak kii moom ponkal dañ si am solo na ñuy ñëw buñ xaar ku leen di woo. na ponkal yëpp di ñëw di solidarité. solidarité bi fi amoon Guédiawaye léegi parcelle la ñibbi moo tax parcelle sax nan nañ delloowaat solidarité bi Guédiawaye ni mu meloon. la nekkoon Guédiawaye daa tuxu man caat bu wàll maa koy wax. la nekkoon Guédiawaye ponkali bokk benn ligne di rangale daan ndax man di bëre dafa tuxu da ngay gis ponkal bi fi am combat sama combat papa Alioune Seye kii lay bëri mu anta na ngeen ñëw yéen mbër yi Guédiawaye yëpp ponkal yi di waxuma nag ngeen di xaar naa noonu noonu woog du ma woo. Alioune Seye suñu papa daa xewle yéen ponkolu géewaay yëpp na ngeen ñëw ku ne xew ku ne na la ponkol yi ñu ko kaw ba suuf ñëpp na ñëw contact man caat bu waalo maa ko wax damay ba ñoo ñëppay ñëw damay sidee ndax booy xool cent pour cent parcelle bi kenn mënu leen ñëpp a doyal bëre ndax ay ponkol am taay boo bëgg du fi du ñëw ñu xàccandoo dóorandoo ñun tamit jël leen moomaat si làmb ñun làmb ñun dañ fi am cër géewaay daa bokk si làmb dañ fi am cër roi de serene bi ba mu ba mu téye na dem géewaay illa lër ñu ñëwaat jëlaat roi de saraan bi fii booy sax boo gisee géewaay booy sax ku ne day jaar gauche kii jaar droite te bu ñu xàccandoo dóorandoo saison bi géewaay moo nekk ay meilleurs leaders léegi ñu bëgg a din loolu pourquoi du du nekkaat solidarité ku mën a ku mën a soxoree nit yokk sa bopp mbëri nan bàyyi ay moytul mbër mii moytul mbër mii te bañ a dégg ay waxi àndandoo diw dalaa soxore nañ ko bàyyi nañ ko deg fële te xam ne kenn ku ne sa trésor morom nga message may jàll damaa bëgg nga jàll nga jàllale ma ko baax est yaa may dégg mbëri kenn ku ne na xam ne sa trésor morom nga bu dee la moytul caat bu waalo te caat bu waalo mën la sa adversaire mën da nga yem jëli caat bu waalo bul xool loolu xoolal li la arrangé sa la bul nan moytul di di digg ay waxi àndandoo lii daan yaa koy def nit ñi jàpp nañu jàppalante entraînement mbëri yëpp te xam ne moo fi nekk maa ngi sant nag ñëpp di baaluwaa akk ñëpp man nag maa ngi sant igri yëpp yaa dogal na man aw ma indi interdit benn igri lu ko dalee igri géewaay yëpp fu ma bëgg bë damay daq sama ngéem dem dugg te musumaa dem si écurie ban xoolee ma bët na moytul kii wala moytul kee dañuy am sawar sax ma ñëw kon maa ngi sant ñëpp écurie yëpp nag tout man aw ma saan interdit wax dëgg fa yàlla maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax mbëri ndaw yi tamit nañuy geesu seen mbëri mbëri mag yi nañuy geesu mbëri ndaw yi ni ko Lac de Guiers defee nan koy defee noonu ak Alioune Seye nan koy defee nan koy defee noonu di geesu seen booy di leen soutien buñ xewlee ñu leen di ñëwal ku mënta dem combat ñëwal ko ëmbal presse dafa jot non ñun dañuy liggéey ah. ñun day liggéey man maa alisé de chaque jour chaque jour chaque jour ñun déggal ma ñun bu ñu suñu laata équipe waaw benn booy mënuñu ñun référence lañ géej wax day jël suñu ñun bu ñu jëlee suudewo équipe waaw ñun complètement xàccandoo dóorandoo ñun booy amul ku nu mën bu dee ñu ñeme entraînement am nañ ko alisé de cinq heures yee boo yëpp ñu ànd fu ñi vidéo alisé nangu mu génn ay vidéo la de guerre mooy nangu mooy nangu ñooy nangu mu génn de xeetu entraînement yi Alioune Seye teg yéen saa nga dugal vidéo suñu yaakaar Alioune Lac de Guiers te fekk na Alioune la maanaam xeetu entraînement yi li ñuy li ñuy ñuy teg ñooñu kon duñu ànd ak ñooñu jénk leen suñuy bopp Alioune Seye 2 jot na doy na référence eh, bu ñu xoolee si Alioune Seye 2 kenn du fi yëg succès moo ñu gën a siiw moo ñu dàq bëre lu mu mbapat mbapatun ko lu mu jël si drapeau ji damay toog naan ko papa yow li nga jël si drapeau Alioune Seye bu doon jamonoy tournoi nag la heure bi bàyyi laay gét lay yor di rattameew papaam ay ne dafa jël ay drapeau mbar ban na ko maire ma ne naan ko fii bu fi nit yooyu kon kay dañ xool ci kooku ba léegi mu wàcce boom yaatal ñu suñu amee combat néegam la ñuy dugg te mbër mag la moo ne tëj néega di naan ay vitamine pourquoi mënu ñoo xool ci kooku référence ba a yëg fii ay succès kan mu lan mooy succès te fu nit nekk nit yegg nit da ko fa yeggale den wàcc suñu bopp xam ne ay doomu aadama la nit ñëpp kenn ku ne boo ko rombee nga jox wàccu waayam bi moom delloo ñëpp te xam ne nit di nga romb doo nuyoo ba ba bañ nuyoo ku la bëgg kon kay fooroo mu nuyul ñëpp saf nuyoo saful nuyoo jamono jooju lan toolu fu ne joolatuñ jamono toolu ak mbagg ak xooguliku toolatuñ ko weesu nan ko duñ koy weesu jamono yi ngay def benn télé fa amoon ay fu mu ne nii lépp ku bëgg feeñ boo fayee ci internet jël si la kon kay lu lu fee des wàcc suñu bopp nañ jàppalante te yéenantey jàmm jàmm moo si ëpp solo na nit ñi yéenantey jàmm ku mën a soxoree nit yi ku mën a gàllankoor nit nga yokk sa bopp kon na nit ñëpp yéenante jàmm def kenn ku ne sa bopp boo defee nit kenn ku ne sa bopp doo sonn sëñ Tuubaa naan ilaa nafsin bilaa daralin gis lalu hôpital yi kaso yi ñoo jot seen wërsëg waxuma laa ñuy dox ak ñu wëri yi nan ko xool foofu bu ñu ko xoolee foofu dootuñu sonn kon kay nan ko yàlla na jàmm yàgg maa ngi nuyu Baye Faye nag moo may ay baas maa ngi koy sant di ko gërëm Baye Faye borom ñetti mbaar as bu Cilo saar yëg defal nañu ay baas ñoo ngi koy sant as bu Cilo Sarr bu Modou Gueye Modou Gueye ñoo ngi lay sant di la gërëm combat bi cax na loolu nga dugal président Modou Modou Gueye ñoo ngi koy sant bu baax di nuyu Ahmed Këlëm lin lin Aline Badara borom Moulaziri waal daan maa ngi sant bu baax di si gërëm di sant sama mafia booy ndaw yi ñoom Ngawla maa ngi leen di sant bu baax seen président ñoom Zal ak ñoom Ndiaga gars yi président bi ñooñu maa leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax di sant staff bu caat bu waalo yëpp tey du ma lim staff bi ñu féete fii du ma leen lim léegi yaatal moo xew da dabaax waal daan dabaax màgg dabaax maa ngi koy sant borom màgg daan mbay gee maa ngi koy sant mbay borom màgg daan dabaax borom ceddo maa ngi sant ñu ñëpp dañ ciy jàpp di sant bii Diallo gaa yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam xalil di bëggee waat ñëpp di si man muy Sofiane Ndour moom a génn fii tey moom Sofiane Ndour maa koy bëggee bu baax a baax a baax baax di ko jox wàccuwaayam bu wér <laughs> nga ne Sofiane Ndour du ma solal man caat bu waalo Sofiane Ndour man caat bu waalo boole ma si si laa bokk li nga sol nii dafa rafet place am nekk ah kon de kii de ku ko defal ñun nga defal moom kon mel na ne solal nga ma ñoo ngi lay ñaanal xéwal yokk place bi li ngay jaay lépp réussir waaye lii qualité bu baax la li ma gisagum nii qualité bu baax bu turki. di bëggaat bu baax a baax Sofiane di bëggee kenn si man Siteu borom yëmbal. maa ngi koy bëggee waat bu baax. maa ngi sant Siteu. dimbale ma ngir yàlla war a borom garab gi nay dëgër. Siteu may sama sama ndànk sama Siteu la. Ah, ah. Siteu laa ñëw signature mu yëkkati xaalis bu bari jëndal ma bolo ko bileeg entier soq làmb ji. Ah. borom garab gi ne dëgër. doyatul làmb ji ma yaakaar lu ne mu jox ma bitéel buy dëgër këcc. Eh. moo tax lépp dëgër. kan ku nay dëgër la ma jox Siteu. yow garab goo jaayal baaxul ñuy jaay na dëgër ñëpp foo leen Siteu. képp ku bëgg lay neexal kër di safar kër di safar lal kikic kiic demal si Siteu nay dëgër numéro 2 ragalu ma la may wax. lay sabar kër di neexal lal gi xale yi di bég njaboot gi di kontaan di barkeel demal si Siteu boroom garab gi ne dëgër yow koo joxul garab baaxul foo jaar yoon la te fooy bëgg a jaar yoon la nan la seet si ñëpp yaa ngi ciy jàpp di jaay lu dëgër këj man mii nag ba nga ma joxoon ba léegi damaa tàng ba léegi nii damaa tàng. xale di bëgg di bëgg Siteu bu baax a baax di ko waat ñaan Sénégal yi la fi jàmm yàgg na di béggewaat kullum rek Sophie Ndour nag maa ngi koy béggewaat bu baax a baax di ko ziar di ko jox wàccuwaayam bu wér moom Sophie tey fi ma génn nii moom la tout droit lay doon ba biir wasaare